président Abdoulaye Wade mu ngi nii di génn ngir rek jëm fi nga xam ne moom mooy Massalikul Jinaan ni ngeen ko gisee mi ngi sol yére bu weex taal def musóoram def euh, li nga xam ne mooy euh, kolam teg ci rek li nga xam mooy bone ngir rek dem euh, Massalikul Jinaan fekkee li nga xam ne mooy inauguration bi waaye it du ngeen gis ni ngeen koy gisee président Abdoulaye Wade moo moo nekk noonu gis ngeen ko euh, ñu ngi mi ngi ànd na ak waa parti démocratique euh, sénégalais euh, président ñu ngi lay nuyu. président ñu ngi lay nuyu. xëy naa la. ngi jëm fi nga xam ne mooy Massalikul Jinaan tey lan nga yëg. nga ban yëg-yëg nga am ci inauguration bi. dé dégguma li nga wax. ban ban yëg-yëg nga am ci inauguration bi. ba ñu dem ba ñëw dañuy tardé. non non je vais lui répondre. Ah, mu ni ban yëg-yëg nga am. ma ne ban yëg-yëg nga am tey ci inauguration. Massalikul Jinaan ban ban yëg-yëg sa impression par rapport ak li nga xam ne mooy Massalikul Jinaan. ah euh, c'est-à-dire Sénégalais yi wane nañu euh, ni ñu bëggee l'islam et murid itam wane nañu seen takkuwaay ci l'islam mhm. loolu loolu mooy. jërëjëf ñu ngi lay bàyyi nga dem. kon euh, dégg nga ko um, li nga xam ne kàddu yi nga xam ne sànn na ko ci rek di waajal li nga xam ne mooy dem Masaalikul Jinaan